li nga xamni tay mom lañu japp ci colloque bi mo di ko wu daf ñu won ni su fekke ni sun Sénégal bi ñu nekk am région bo xamni mo fi ëpp loo xamni sun suñ si sukkandikoo dëkk bi dina dox moy la région de Sédhiou loolu mom colloque bi génnee nako te amul kenn ko xamni parce que colloque bi y avait que des d'éminents chercheurs et universitaires ñoo fi nekk ci depuis vendredi ba léegi ñoom ñoo fi nekk di discuter donc te ñom ñep ils sont venus de y en a même qui sont à l'étranger on a reçu des Burkinabés mais ce qu'il faut retenir li a que tey région le Sénégal wala sukkandiku pour développer Mais la région de tout. parce que l'homme a une richesse sur le plan historique sur le plan culturel sur le potentiel économique amul benn région bu ko au Sénégal donc c'est la première région c'est la région qui bi nga xamni mo moo war porter le développement économique et social du Sénégal mais région bi ëpp ay écrivain ñoo xamni ne leen bind ay livres ay muy livre yo xamni roman lay doon wala livre xam-xam wala livre ay poésie c'est la région de Sédhiou UCAS voilà sur le plan culturel ñëpp gis nañu UCAS ni mu du temps de Senghor parce que Senghor moom euh, il a joué un rôle éminemment important pour le développement de ce pays en se basant aussi en se qui, euh, du sukkandiku ci culture c'est waral ni ba nga xam ni Sédhiou xoolal Sédhiou fi mu nekk ak Sénégal ak Dakar ni mu sore mais amul benn région compétition bu mës a am au Sénégal sur le plan culturel UCAS moo